teguwut ci xel ndax abaa léegi laay dégg ci RFM muy wax ak waa jigéen asan gay euh, ne ko wax dëgg nag war nañee mën a wari su fekkee ne ci xel kese lañ ko teg abaa ne ko ah déedéet nag doo commission ndax est-ce que loolu sax xel sax dina ko nangu ma ne ko effectivement xam-xam nangu na ko loolu mooy sori ah xel nangu na ko aada nangu na ko aada bi mooy li ma wax léegi bu weeru koor masaana feeñ ca Sénégal ba ca Congo balaa fajar ñëpp yëkku kon naka jekk noonu lañ daan doxalee Sénégal naka jekk noonu lañ daan doxalee jamonoy sëñ Babacar ba jamonoy Cheikh Al Hadj Abbas fu mu ko masaan a dégg ne man Abdou kat sori adab na ma bu ma mënta wariloo kenn it sori adab na ma sëñ Abbas Sall noonu noonu la ko daan noonu la ko daan doxalee sëñ Ahmad Ndiaye sama yaay nee na ma woor nañ ba diggu bëccëg ba tàyyi ñi jot xabaar ne weer wi feeñ na kon nag nañ wari um nañ tam koor dem ba diggu bëccëg ñu ne ah weer wi feeñoon na démb kon kat nañ doog kon nag naka jekk tey ci la yëf yi am ay pàcc pàcc kenn ku nekk di demee nu neexee diine nag. du demee nu la neexee diine da nga koy teg fi la yàlla sant ak yonent bi salaay salaam boo bëggee doxal sa diine boo defee jullit daal bu defee loolu wàcc na yonent bi mooy borom ndigal moom moo joxe ndigal ndigal la nag ci yàlla yonent bi du joxe ndigalu kese kese yàlla ci boppam moom moo joxe ndigal awee ko ci làmmañ yonent bi yonent bi wax ñi ne nii la yàlla tëralee yëf yi loolu moo tax léegi ci xutbaay Cheikh Seydil Hadj Malick bi ñu koy wax Cheikh Al Hadj Malick li mu ubbee mooy ñi ngi sant yàlla mi nga xam ne moo yoonal ci ñun ne nañ dog bés bii nañ ko dog ndax bésu taar la xaraam na ku ko oor ni mu xaraamalee woon ñu ooroon bés ya ko jiitu woon noonu la yoonalee ne dég bés bii nañ ko dog xaraam na ku ko oor